am na bis yonent bi aleyhi salaatu wasalaam di tukki ànd ak saxaabaam ci biir saxaaba yi ñu am fuñ wàcc am lenn ci saxaaba yi yu doon doxantu ba fekk am picc mu am ay cuujam fekk picc ma génn tàgg ma ñu jël cuuja yenn ca saxaaba ya ñoo jël cuuji picc moomee ba picc ma ñëwee fekk ñu jël cuujam ya muy biiw di naaw di wër tàgg ma ngir wone ne am na lu muy seet ngir wone ak jaaxleem ba yónnante bi seet loolu dal picc mii day li tax muy biiw xanaa dañ koo tooñ muy dem ba seetlu ne tàggam mi dafa amoon ay cuuj ñu won ni ko jël ko yóbbu yónnante bi coppa moo ne ana ku jël cuuji ndey jii ndax ndey la yaay yaa ngi nii da a jël cuujam yi ana ku ko jël daal ne ngalawaay delloowaat leen ko ay doomam kuy wax yonent bi ci lu muy wax am picc muñ jël ay cuujam ñu muy waxal saxaaba ya bind bu rëy la mbokk yi ci ne maanaam li doomu aadama di yëg ci diggante ndey ak doom rab daf ko yëg ci diggante moom ak cuujam bu dee am picc moom ak i doobam bu dee rab yeneen yi ci des ba tax yónent bi ne ruddu ilayha waladaha delloowaat leen ko ay doomam ngir yërëm ko ci coono ba ko dal loola ku ko dégg kon da nga xam ne yónent bi kat jox na rab yi wàcc waay bu rëy